soxna Maymuna Mbakke président Abdou Diouf mas na faa ñëw seet si ko ba mu demee ñu gis ci këram yoo xam ne melut na mu kuy responsable kam doon ganale moo ànd ak ñoo xam ne bu ñuy ñëw Tuubaa dañ leen a war a tànn ñu ne ko ka ña àndoon ak Abdou Diouf li tax ma di ko tudd histoire bu wér la ña àndoon ak Abdou Diouf day am na ñoo xam ne seen néeg yañu daloon gis nañ fa lii ak laa mu ne bu ñëwee day danaa ko ko danget mooy buy agsi may dal ci kawam ne ko sama kër du ma fi def ay caaxaan bëgguma ko ko fi def mu xaabaraat nag dafay yàgg muxaabaraat boo ko déggee mooy ñi nga xam ne dañuy wër ay xibaar kër gu nañu dugg fa añ añ lu fa reer reer fa naan naan fa kafe donte bëgguñu kafe waaye faw ñu xam li ñu fiy wax lu mu ñu wax ay bokk na leen su waxee loolu président musiba am ñëpp ñu bari ñëw di ko mocc naa ko yonent bi moo nekk ku gëm yàlla gëm bis ci del gane la sa gan ca la bëgg ñoo ko ca dool yonent bi gan dolli wu ca loola na ganale ganam na ko taral mooy tara nga ji nga ji nga yor mënoo joxe loo amut du tax nga bàyyi ko ci li ko neex mu ne leen jërul sonn bu fekkee bu ñëwee duma ko ko wax bay boo ngeen xam ne ka demoon Ndar juruma fermeté boobu ku ne war na koo jàng am ko ci lim gëm fas ko di ko dund